routier du yoon ñi nga xam ne ñooy tëgg yi nekk fii ci sunum réew di euh, daw ay junni junni kilomètre ngir rekk mën a daj ci or bi ci jamono nga xam ne or bi nga xam ne mooy jógee Sabodala di génn ci réew mi. waaye tamit ci ñoo daal Somi Sène war na jouer rôle ma fexe daal ba ubbi ay gëtam ngir xool wàllum ambition ci programme bi nga xam ne moo ñor wàllum soppeeku waaye ñu gis tamit ne projet bi dafay daal di euh, fexe daal ci wàllum mobilisation ci ressources yoo xam ne dañ koy daal di sukkandiku ci suñu réew ci wàllum financement ci way politique yi waaye tamit Somi Sène yi tamit ci euh, lëkkaloo ci compagnie nationale yi nga xam ne war na fexe daal ba nekk loo xam ne da koy daal di xëcc liggéey ci wàllum koom fii ci suñu réew loo xam ne ci wàllum exploitation jaarale ko ci li suñu moomeel